asalaamaaleykum sunu mbokk internet Sénégal 7 dal leen ak jàmm ci seen rubrique seen acte du jour ña nar a bànneexu ci ganu Macky Sall ca Thiès mooy ña doon liggéeyee ci chemin de fer waaw suñu toppee ci Sénégal 7 Macky Sall 1 milliard la leen di jox ci kàddu Yankoba Diattara nag koppar gi viré nañ ko ba pare. si fàttali liggéeykat yooyu dañu def 40 ans de service doon laaj seeni indemnité de retraite yu toll ci 800 millions waa parti démocratique sénégalais PDS nar nañu xëpp suuf si ganu Macky foofu ca Thiès suñu teewloo ki nga xam ne mooy njiitu ndaw yi di Ndiaga Diaw fas nañ yéene topp itinéraire u Macky Sall ak seeni pancarte brassard rouge te dinañ ko laaj fu 448 milliards yi mu digoon Thiessois yi toll ñuy xamal ni Macky Sall nag troisième mandat du fi am ba tey Sénégal 7 moo ñu ko daali dégtal ñu jublu Saint-Louis ka fa nekkoon maire Cheikh Bamba dina samp ndëndëm ci local yi ci biir Seneweb mi ngi xamle ni moom bam fa nekkee kat woy bu rafet ak liggéey bu jaar yoon la fa teg si sénégalais yi dañu soxla si seeni bopp gox ay nit yu dëggu ñu desendeeg Cheikh Bamba Dièye ba tey dafa daal di àddu si loi bi si terrorisme jiitu parti FSD/BJ xamle na ni loi bi dara gënu ko injuste te sénégalais yi xamuñu ko mu yokk si ne waxtu bi ñu ko wotee dafa xaw a suspect maanaam li si nguur gi nar daal tey na xel Seneweb moo ñu ko xamal gannaaw ba ñu dugalee ministère bi si coowalu passeport maître Aïssata Tall Sall si ab communiqué mi ngi xamle ni lenn amu si li nga xamante ni moo di xaalis bi ñu ne dañ koy laaj sénégalais de jaspora diaspora nee na loolu dara du ci dëgg cey Dakar moo ñu ko xamal BL Samb li mu def rëy na natu tabaski tabaski bu commerçant marché Zing marché Thiaroye Chavanel ak Waranka la daal di dajale nëttiir dañu bëggoon jël seeni xaalis ngir waajal julli ji si lañu xamee ni ki doon dajale ak denc tontin bi nag dafa daal di daw ak seen xaalis cey Dakar mi ngi ñi xamal ni ñi bokkoon si tontin bi nag fi mu toll nii si njàkkare lañu ñu nekk ñu di leen jaajëfal di leen jox dig daje suba incha allah ci seen beneen rubrique SENactu